Euh, sëñ bi salaam man maa tudd Opa dëkk Kër Massar euh, quartier bu ñuy wax Dar Salaam extension. Euh, Opa monsieur Maro ñu dégg la nga nekk di yëngatu ci activité politique ñu bëggoon a xam depuis kañ la monsieur Maro commencé dugg ci politique ak lan moo nekkoon ba li nga xamante ne très bien. kontaan naa ci bi parce que politique euh, maa ngi ciy dugg en 2007 2007 PDS laa adhéré woon après ma jógee PDS en 2008 2009 dem ci euh, APR waaw 2007 ba léegi maa ngi politique. Euh, ba nga dugg si terrain politique bi naka nga ko apprécié. trop commencement métti dem ba politique politique métier la boo xam ni du métier te neexalul kenn yaa ngi dégg donc euh, dama ko apprécier dama ko bëgg ma dugg ci donc loo bëgg xam naa dina neex na mais nu métti métti mais loo amour la quoi bëgg naa ko kontaan naa mais euh, ma euh, tey quoi ma sant bu baax. ca tubaab ñu lan bi lan moo la fa andi ba nga yegg si tey ci APR. APR man j'ai adhéré à l'APR ah, dama dugg APR en boobu maa ngi Paris Paris laa adhéré APR ma dem ba dem ba yàgg ma bokk ci mooy li ñoo DSE délégation des Sénégalais de l'extérieur maanaam ñi nga parti bi ci APR France ci ci bureau bi laa bokk donc maanaam fii fii nu ñu koy waxee comité directeur donc directeur ci la bokk France. Euh, plus précisément Mantes-la-Jolie muy sur section foofu ma nekk euh, ma nekk euh, chargé de la communication au niveau de la section et au niveau de la jeune je suis chargé de la de l'organisation donc APR aper muy dugg APR neexul yombul parce que loo xam ne parce que man njaago laa ñu naan njaago lu muy dugg ci politique ci politique parti Alpulaar mais bi may duggee foofu macha allah dañ ma lépp. franchement pour man sama politique yëpp la jolie la lancé wu te du ma fàtte mantes la foofu ma sama la Sénégal nga ne fii précisément euh, ci Malika euh, quartier Darou Salam euh, la andi la jolie yeggali ko noonu sa action très bien ma lu tax ma parce que biñ nekkee France Sénégal yi ñu political. donc politique c'est au niveau national parce que développement la ñu bëgg yaa ngi dégg mais développement nag comme ni ñu ko waxee bale ci wew tànk lay commencé fii laa dëkk fii laa juddoo fii laa màggee fii laa cosaanoo donc li may ne politique boobu yëpp picc a ngi si kaw xel ma ci suuf fii moo ci suuf si moo tax ma dellu si fii bokkoo ak ñi fi dëkk samay mag samay papa samay ñëpp dëkk fii pour ñu demandoo mu a euh, téye koñ bi développé ko buñ ko développé ba euh, on tourne dans le Sénégal waaw man lu ma gisee. ci bokkoo boobu nga bokkoon naam waaye ngeen am kuréel bi nga xamante moom moo leen tënk mu nekk mouvement bu ñuy am comme sigle MAC ah, muy mag ma bëggoon a xam euh, mouvement boobu naka ngeen ko organisé ak sigle bi exactement lan lay signifié. très bien euh, bi may jógee France en euh, février mille dix-huit man man man maa àndal idée bi parce que man. dama bëgg bokk ci acteur développement yi te loolu ay dox ma ñëw ma ne léegi ma gis samay rak ñu bokk toog waxtaan ma ne gis ma ne léegi euh, développement munu man kese mënu ma ko def man kese mënu ma ko def te ki kese mënu ma ko def léegi il faut ñu booloo doon benn ñu mun a ànd léegi loolu nag ana ah, c'est en avril bu ñu lancé idée boobu léegi ñu ñu d'accord ci idée bi gaa yi gis ci idée bi ils ont apprécié léegi su ñu formé benn euh, bureau. yaa ngi dégg ñu formé équipe léegi tur bi buñ koy tudd boobu maa ngi France après euh, on est on est en réunion de euh, téléphonique après ñu trouvé su tur bi tur bi noonu mag mouvement de la citoyenneté te citoyen loolu tënk na mouvement d'action e de la citoyenneté action yi la ñuy def développer on est des de développement franchement ci loolu la ñuy yëngu te mooy man man man loolu mooy sama vision politique politique bu ànd ak développement waaw. Euh, mu mel ni bu ñu la déggee euh, monsieur Maro mu mel ni sonnoo ba nga yegg Sénégal pour euh, taxawal fi benn mouvement parce que xam nañ ni am na ay camp politique nga xamante ni nekk nañu comme buñ ko mënee woowee noonu ay rival am na ñoo xamante ne daal fekk nga leen fi naam boo bokkee ak ñoom camp politique bi ngeen bokk sa xëy na leadership bi da ci am wala dundu jotul dundu genre bi. dundu ma ko mu ma dundu dundu parce que fi ma ñëwaat xam naa foofu. ñëw ma Sénégal Sénégal xam Sénégal dafa yaatu ba foog nga lim bi sax seen Sénégal la bok mais xam naa fu ma jëm te fu ma jëm defe naa même même bu rival amee foofu sama mbokk du sama rival man ko dañoo bokkul fu ñu jëm rek mais ñoo bokk li ñuy liggéey. et les adversaires fii opposition je vois pas l'opposition dans notre quartier. Ah. parce que man tey tey franchement bi ma ñëwee. dox naa quartier bi yëpp fu ne dugg naa fa waxtaan ak ñoom xam nga loolu moo leen manqué woon leader yaa ngi dégg donc ñu ne ma on est prêt vous accompagner là où ñu ñu ñu booloo doon benn waaw. également euh, ñu fekk leen ci xolu benn activité mu nekk activité citoyenne bu civisme naam ñu gis quartier bi yëpp génn ñu bëggoon a xam lan moo fan la xelu créer activité boobu noonu tudd ak naka ngeen ko dundee. lool c'est pas la première fois yàgg nañ ci parce que bi euh, si je me si je me rappelle bien bi mooy deuxième fois bi mooy deuxième fois ñu activité ci koñ bi même du deuxième fois sax parce que euh, fii dañoo nekk fii lu waaye am ci koñ bi ñu ñëw bokk yaa ngi dégg set setal bi dañoo toog rek créer benn suñu mouvement franchement pour te dire réellement tey mooy suñu première activité bu ñu moomoon suñu bopp mais moom activité yi jàll yëpp am nañu waa quartier ko moom day ñëw rek bokk ci jàppale leen yaa donc loolu ñu bokk ñu créé idée bi naan tey dañuy def société le 21 mu am gars ñëpp génn apprécier doon benn waaw kenn xamul kenn kenn xamul kenn fu mu kenn fu mu dëkk ñëpp a euh, rapport ak activité écrit des euh, des demandes d' aide au niveau des mairies. donc euh, on a eu des réponses favorables di di leen remercier bu baax a baax a baax di naan parce que ñoom tamit lu tax ñu remercier parce que ñun ñoo bokk parti ak élus locaux yi parti APR ñoo ko bokk donc euh, il est évident ñu jàppoo doon benn pour mën a amaat victoire du 24 février 2019 incha allah. après l'interview tire à dara rek euh, fan la ñu mën a xaar mag ak euh, euh, monsieur Maroc personnellement. mag fu leen mën a xaaree. waaw ci bien avenir bi benn day dañoo am benn cap développer suñu quartier benn ñaar mag sa mouvement politique pur et donc ki di politique yow des échéances à dañoo dañ ci bëgg a participer après tout les gens mooy euh, euh, euh, élection locale yooyu yëpp mën nañ ci bëgg nañ ci participer incha allah. te participation yi parrainage jot ngeen cee commencé liggéey wala commencé mais parrainage bi mu ñëwee ba léegi franchement ñi ñi ñi ñu ko jëlee fiche si lañ bokk. waaw ah, bi. te parrainage mi ngi mi ngi jàll à 100 pour cent parce que fii comme ni ñu ko waxee fii ñoo ko moom. et vous personnellement ci man bari na euh, man franchement li ngeen xaar ci man bëgg naa bokk ci lamb yi di ñëw maanaam échéance yi di ñëw après euh, après euh, élection présidentielle yi parce que bu très bien parce que si je comprends bien y un décret qui sorti l'acte 3 de la décentralisation te lu bu am bu loolu amee daf ñu touché fii et c'est très bien j'attends te loolu Kër Masar incha allah dañ an diviser en quatre communes parce que Kër Masar boo xoolee tey Kër Masar moo mat Géejawaay ñetti yoon te Géejawaay est divisé cinq communes donc comme Kër Masar tey mi ngi doxee benn commune c' est pas normal donc dañ koy diviser en quatre communes te commune bi bokk suñu ñun incha allah bëgg naa ci bokk ci élection yi incha allah bëgg a doon euh, maire commune bi. boobu ak yeneen yu bari ah, ñu ak a jox. première activité ci di joxe parce que dañoo parrainé ay quartiers yu bëri comme li ma doon sànq bii mooy suñ première activité mais dañoo parrainé amoon nañ benn communauté communauté Manjaak de tout Kër Massar Kër Massar yëpp dañoo organisé benn tournoi Manjaak ak journée culturelle man nañ ko parrainé on les a donné ay bal ay maillot lépp lu ñu mën daal def nañ ko si tey euh, ñu jëndaat comme lii ñun ñoo ko moom. ñu organisé benn sesadal sesadal nag ku dégg sesadal mooy setal sa gox ba pare bu setee nga mun ko aar yi di ñëw maanaam moustiquaires yi surtout période bi ñu nekk moo tax ñu jël moustiquaires yi comme ça bu ñu sesadal ba pare bi mun a bénéficier ci moustiquaires yi loolu kese la ñu moo tax ñu jël moustiquaires yi jox leen ko ci ci ci ba ñuy door ma dégg nga wax ci njaago nga tudd ni njaago nga ba ñuy jël ma déggaat ngay waxaat ni euh, lëkkaloo bi nga am ak njaago yi ma bàyyi la nga waxtaan ak sa mbokk njaago yi euh, leen waaye tamit nga fàttaliwaat leen sa bëgg-bëgg ah dina ngay xaar si ñoom bu doon balaa ñuy jël euh, ma njàkku man ci Mboos Mawlidu tëb man jënd baran euh, man Opa Opa man ci man bëgg na Sénégal man ci Sénégal 100 pour cent man ci du politique te na siiba de angal da tënke bayit yi ma njàkku euh, njaga teebut ti ñañante ngal pi bande ati mo njago bling tu ñañante na mo njago tina ci doji njaga tënkul njan tina tina ngal ban Tenji ma ngi bëgg a politique te incha allah ma ngal bandité un jour mon rêve këpp ci mair maire ou député ou ministre waaye nde tënkee te ko mënto suñ combat ji daal lu ma tënkee wax ji waxtaan bi si euh, olof nag dafa may sonal man su ma tënkee wax ji mooy maa ngi gërëm bu baax a baax a baax may gërëm waa mag surtout mag euh, c'est pas facile euh, buñ koy sos c'est pas facile donc balaa ñu koy dégg nañ lu ne ci quartier bi ñu toog gumba muuma ñu dem suñu bopp ba ak fi tey man personnellement au fond du cœur aw lu ma leen di fayee franchement bu dee yàlla am na bu dee yàlla am na te yàlla day moo yor fayam waa mouvement Macky yëpp yàlla na yàlla fay parce que gis naa c'était pas facile ki na mat bàyyi taxawal ba tey mënu ko fay te joxo ko dërëm fii laay toog ñoom ñëpp di dox donc loolu yëpp te fuñ dem sama tur la ñuy wax aw ma munuma te xawma ma nangu ànd ak man samay grand donc munuma leen su ma turee benn tur rek il faut ma égali te duma tur benn tur mais képp ku nekk ci fu mu nekk te mu wuyoo mag maa ki gërëm di ko ñaanal man sa mbopp euh, toujours lu ma man lu ma leen di yéenee lu ma leen yàlla naa si jiitu man Euh, maa ngi leen di gërëm bu baax a baax parce que waa mag su ma wax ci moom fii la fanaan en grosso modo maa ngi leen di gërëm du fond de A à Z je le remercie infiniment infiniment infiniment lii même bu yemoon fi sax doy na parce que on a marqué l'empreinte dans notre quartier et on a fait c'est quelque chose qui que quelqu'un n'a jamais fait dans le quartier donc on a marqué notre empreinte ici moi ça me suffit, franchement, largement. Et je, je tiens à le remercier du fond du cœur parce que euh, convaincre les gens, c'est pas facile. Convaincre une personne, c'est pas facile. 2, 3, 4, jusqu'à 20 personnes. Et là, on est à 4000 personnes. Ces 4000 personnes, c'est eux qui ont fait le travail. J'étais pas là. C'est eux qui sont passés partout. Et non seulement le travail, ils, ont, ils sont organisés encore. Franchement, si je pars sur eux, On va, on va rester toute la journée ici. Donc du coup, je leur souhaite euh, beaucoup de chance, que Dieu leur paye. Et euh, aussi, euh, concernant vous, la communication, franchement, je l'ai dit tout à l'heure, je ne m'attendais pas. À ça, je ne m'attendais pas. Et je suis très ému et vous méritez plus même. Franchement, parce que c'est la première fois qu'on se voit, je ne savais pas, je ne vous ai jamais vu. Mais franchement, je suis frappé. Je suis frappé au fond du cœur. Et je vous souhaite longue carrière, beaucoup de chance. Rien n'est facile. Ça, ça vaut de l'argent, ça vaut tout. Et tout ce que vous vous donner aujourd'hui, c'est rien. Franchement, c'est rien. Ce que vous avez fait pour nous, moi, ça, je le sais. Et je connais la valeur de la presse. Je connais la valeur de la, euh, de, de, de la communication. je sais très bien, parce que j'ai choisi la communication. Et avec vous, aujourd'hui, vous, nous avez lancé. Donc je tiens aussi à vous remercier du fond du cœur. kontaan trop si yéen yéen yéen yal neen taxaw franchement li ngeen li ngeen commencé nii baax na parce que man li ma wax nii sama xol laa ko tibbee wóor na yàlla yéen bu am na yàlla na yàlla mooy leen ci lu lu garaaw yàlla teg leen ci yoon boo xam ne yoon bu jub la ba ngeen li ngeen ci séntu ngeen am lu ëpp loolu franchement j'ai pas regretté je suis très très satisfait aujourd'hui là cette journée aujourd'hui c'est à moi franchement c'est à moi je suis ému merci beaucoup